audu billahi min asheytaani irajim bismillahi arrahmani irrahim ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci seydina muhammad salallahu alayhi wa sallam xam naa lii mbokk yi wax tey ñu ngi ci cëppaandaw gi ñu ngi ci mujj buntu bu mujj bii tey eh, yàlla dimbali ñu ci fukki fan yépp ba ba léegi ñuy ànd ak yéen di nab nabi ci buntu téere bi di mooy eh, burdatul madih nga xam ni seydina muhammad salallahu alayhi wa sallam moom lañu ko tàggee te tàgg yonent bi nag ah, li ci nekk ci fayu yàlla ak lu yàlla kenn xamul lu mu toll inna laaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi yàlla ak malaakaam bi dañuy julli ci yonent bi mu joxe ordre ni yaa wala inna laaha inna laaha wa baax na waaye inna laaha wa malaikatuhu wa malaikatuhu yusalluuna yëpp baax na kon téere bi nag mi ngi wax ni yaa akramal yow mi nga xam ne gën ji mbindéef maa lii déet kenn di ma ñeel man koo xam ni maa lii di ma ñeel man kenn koo xam ni aluusu ëllëg danaa wéeru bihi ci moom si waaga ko dul yow man arab daf koy wax ci lu amul xel ma mu koy wax ci lu am xel man ci lu am xel waaye yenn say arab naxwu ñëw jël man def ko lu amul xel jël ma def ko lu am xel yàlla wax na ci alxuraan ni fankahu ma taaba lakum min annisaai te waxul man ñëw na itam ni wa minhum man yamshi ala arbaa am na ci yoo xam ne ñeent tànk la ñuy doxee te mooy bàyyi mayib kon man da jëfandikoo muy nag yaa akramal xalqi yow mi gën a tedd ci mbindeef yépp nag moo tax waxkat bu mën a wax danaan ka la gën ko ko gën ka gën ka nabee ko gën sallallahu alayhi wa sallam maa lii déet kenn di ma ñeel man ko xam ne aluz danaa wéeru bihi ci moom si waa ko ku dul yow ànda xululil xaadisi bis ba nga xamee ni xew-xew ba màgg na wàcc na ala ami ba aj matati mooy yowmal qiyaama alxaadis achamili jamilil xalq kenn du bàyyi bàyyi kenn benn moo xam dee la te mooy mooy alqiyamatu soxra wala boog assaatu la bu mag ba te mooy yowm alqiyamati te mooy alkubra bayit bi nag bokkoon na ci tax ñu ni Muhammad Busiri yëfër la parce que dafa ne pourquoi muy wéeru ci kenn ku dul yàlla bàyyi fi yàlla dib di wéeru ci mbindeef te mooy sallallahu alayhi wa waaye xam nga kam la ma doon wax rek as moom wolof ne ñaar ci baax as bàkkaar ak as sobe waaye as ndox moom baaxul as jeex as mbàkkaar ci baax ak as sobe mu bañ bari mbàkkaar ba itam bañ a yaatu kii li mu wax ci yonent bi boo ñëwee ba fii ni la parce que nee na ci yonent bi la yaakaar ñàkk a dégg la tey boo jógee woon fii jëm Dakar benn set place des bi da nga ko daan ginnaaw yàlla ba mu yaakaar waaw ndegam ab sa place donc yow boo boo dugg si moom mënoo dox fii ba Dakar kay moom rek nga yaakaar waaw wax dëgg yàlla kooku lu caa gën a yow yéefar nga am kilifa gu mag Thierno Tahir neen dafa dem Màkka di raay xabru yonte bi weñ yi benn naara ñëw ni ko bidaa la li ngay def ni ko hada xaraam mu ni ko ñaata weñ laa romb Sénégal te raayu ma ah? ñaata weñ laa fa romb yu gën a rafet yi te raayu ma kon koy su weñ gi raayu ma weñ leer gi bàyyi ko ci raw du yonte bi tey romb weñ gi ma xam ne leer gi yàgg na koo romb leer googu laay taataan doonte mënu ma kaa gis nag ku mënu maa gis leer ga kay ma ma ma ma gis la la leer ga yàgg a romb te yàgg koo laal am ci benn jamono yu ñu demee màkk am ci benn nit itam di ziar ci rawdu bi di raay am ci benn policier yi foofa ni ko bidaa ni ko lii bidaa la mu ko yow bidaa nga waaw yow ci sa wàllu bopp yow bidaa nga yow ndax bi yonent bi dund policier bi garde amul foon kon yow jëm yow yow yow yaa njëkk nekk bidaa avant kenn di def bidaa yow waa ji daa mujj di woo moroomam mi di leen laaj gis ngeen li ma waa ji wax loolu nag innamal amalu binniyaat nit ki li mu wax yawmal qiyaam kay yàlla moo ne ko laa tanfaahum shafaatu shaafiin alquran la am na ñoo xam ne ramu ñuy jariñ du leen ram moom na mu ni kon moom yàlla wax na ni kon am na ñuy ramme ëllëg mu ni moom yonent bi rek la ci yaakaar gisul keneen ku dul yonent nga ni li mu wax loolu yëf la parce que warutoo woon a def lool yonent bi wax na ni même yowmal xiyaam ba demee ci bugyatul mustafid ca fin ba indi na xadis ba nit dana dem yowmal xiyaam rang nga gis nit ni ko mayoon naa la ndox ci àdduna mu ni yàlla kii dimbali ma mu jàll waaw nga ni nag Seydina Muhammad mënu lool xanaa Sénégal xanaa ci àdduna bi ñu nekk rek policier dana la arrêté euh, euh, euh, commissaire am téléphone ñu bàyyi la nga dem sa yoon loo àdduna rek misaal la ci kon xëy na ñàkk am xam-xam ak ñàkk bëgg di mag ñi rek mooy buusañ yu bari waaye lii mu wax ci xam-xam nag moom du luñ ko mën a jamee moo tax nee yont bi rek ëllëg yé moo tax keroog yomal xiyaam su demee ci yont bu ñu dem nga dégal sa responsabilité Seydina Muhammad rek moom nooy taxaw yàlla ni ko sal toxta wa shawatu shafa walan yadiqadu xad nag rasulallahi Seydina Muhammad am na fu muy tuddee Muhammad am na fu muy tuddee Ahmad am na fu muy tuddee rasulullah yëpp ay maqaama yu bokkul la parce que dafa jar a xàmmee boo gisee yenn saa yi jibril ñëw tudd ruuxul xutsi yenn saa yi mu ñëw tudd ruuxul amiri yenn saa yi mu tudd jibril yëpp ci ñetti tur yooyu benn bu nekk ak àll ba yonte bi nekk mu di ko fe fa la ko cee fekk ndax yonte bi daan na toog ibi jibril ñëw jël si ay cours jàng si ay leçon parce que wa alama aadamal asmaa kullaha te bi mu koy laaj la mooy islam ak lan mooy iman ak yooyu yonte def ni ko ki koy laaj gënu koo xam ki koy laaj gënu ki koy ki koy laaj gënu koo xam ki koy laaj waaye dafa am instant boo xam ne nañu ndonoo ci maam aadama doon jàng ca moom noonu la yonte bi joxe cours bu firee ba waxee ba par nag lañ cay jariñoo du bokk ak li ci saaba yi di dégg moo tax wala ya deeqa du xat mukk rasulullahi jaaxu ko sa daraja bi ci man yonte bi sa daraja lu du mukk xam naa fu ma ñëwee xaj naa mun kañ isa taxalla bis bu takkaayoo moom yàlla alkarimu aji tedd ja bismi muntaqim yàlla dafa am turam wuñ tudde al muntaqim yowmal xiyaam moom lay sol nag ku ko daan mooy mu duma la yàlla rey ñëpp rey asrafil mikaal ba kenn du des mu taxaw nag ni li ma ni mulkul yow yàlla foofu lay waxee kenn kenn du yàlla doxantu ci ci waxee ne ku li ma ni mulkul yow ku moom nguur kenn du yëngu mu soog a toogaat nag ni lillahi wahid qahar ay la nag ndax yàlla lay saka misli che yorul siège boo xam ne dafa ndax boo ne toog rek ndigg day judd te yàlla yomut ak ñun waaye taxaddasuna ala qadri uqulihim nit koo ne woon nu yàlla mel ci waxin danaa la benn góor gu rafet la ku xees rëy ma am sol garaam bu weex tàll jekk waaw ndax mënoo min imaginer jigéen mënoo imaginer xale kilifa rek nga mën a imaginer waaye nag laysa ka misli shay nag dara mel ni moom moo tax yow xëyaam bu ñu gisee yàlla daan taxaw ay junni at tax tax yéemu rek di xool ndek kii mooy yàlla moo tax mu ne ko nag bis bu yàlla soli mantom boobu nag li ma ne mulkul kenn du yëngatu muy lillahi waahidul qahaar yàlla rek ay yàlla boo ko tuddee sa doom sax mu dee boo amee doom ni ko tuddee ci nopp yàlla rek mu sedd guy ah kooku yéen di essayé bokk na ci tabe gi yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam addunya wa darata ak wujjëm nga bi boo gisee yàlla wax nañ ko léegi ci xadis bi mu leer nañ tabaraani eh, eh, eh, wax nañ ci sanad bi nga xam ne alxaakim solo na ko fil mustadrak tabaraani solo na ko bi maam aadama defee lekke garab ba dafa ni yàlla maa ngi def tawassul ci barke yonente bi mu ne ko foog ko xamee mu ne ko damaa bu ma defee dama gis turam ak sa tur ñu boole leen ci pero arash mu ne ko waaw kay aadama baal naa la ci turu yonente boobu wax nga dëgg moom laa gën a bëgg ci mbindee fiti moo tax ma bind la te yàlla dafa bind suuf si ak ñam yi ak asamaan pour aadama ndax ba ni aadama tax yàlla bind saxar la ku maa fil ardi waaw kon nag bu fekkee ne aadama adduna bi garab yi yàlla aadama tax ñu bind ko te aadama yonent bee tax ñu bind ko kon kay yonent bee tax ñu bind ñëpp nag mu ne ko bu du woon yow fa inna min juudika dunya adduna bi wa darata ak wu jëm ba alaxira wa min ulumika ci sa xam-xam bu bari bi almallaahi wal xalam ci la allahu amee wa ci la xalam amee xalam yi nag fukki xalam ak ak ñaar la waaw bi yi yàlla bindee juróom fukki biig ak ñaar la ah, ah, lawxul allahul mahfuz ñaar la ba nekk asamaan mooy bu ndaw bi waaye yonent mooy bu mag bi ba nekk ci kaw asamaan alxuraan fa lañ ko def waaye benn ligne la fa nag liñ bi amul fu mu commencé amul fu mu yem moo waral nañ ko fa bindee nañ bindee faatixa ci bopp nit ba soo xaroon bopp nit mu mokkal kaamil bi yëpp doo ci gis benn araf alxuraan te bu ko neexee tari ko lañ ci bindee lawxul mahfuus moo tax say mbir bu yeekee ci max mahfuus mën nañ ko guddal sa fan waaye bu xasee ba àgg ci kitaabul maknuun kenn dootu ko changé ti moo tax say xaal maa ngi ni salli ala lawxika almaxfuusi ashraf min kulli xalaayiqi kon boobu yonent bi mooy lawxul maxfuus akbar ndax la ci lawxul maxfuus bële mi ngi ci dënd yonent bi ci dënd yonent bi nekku ci lawxul maxfuus bële moo tax min ulumika alma wala xalami yonent bi lépp la xamoon nee na àdduna liy am ba liy ñëwaat woon nañ ma ko Idris moom lañ tuddee yonent yàlla Idris ndax moo njëkk a jàngale jëlee ko ci baatu darasa te lu am ci xam-xam ci yàlla ginnaaw yonent bi la boo déggee ñu naan la yonent bi jàngul woon ak yooyu yëpp niveau la ak xam-xam moo tax nit ñi war nañu tey ci yenn firi yi bu baax a baax baax mu ne nag sallallahu alayhi wa sallam yaa nafsu yow bakkan bii laa taqnati bul naagu mukk bul tiit min zallatin azamat lu bàkkaar réy rek yàlla mën na la ko jégg ci barke bu ci ci leeru yonent nit du mu def bàkkaar bu ko rëy ëppale boppam innal kabaira nee na bàkkaar yu mag yi boo ko xoolee fil xufraani ci géejug njéggalug yàlla kallama mi comme bàkkaar yu ndaw yi la mel yàlla géejëm géejug yërmandeem nga lu bàkkaar rëy rëy boo ko ci dugalee day mel ni bàkkaar bu ndaw ndax itam nag yàlla subhaanahu wa taala nee na inna yonte bi nee inna allaha yaqbalu tawbatal abdi ma lam yugargir yàlla boo jéggul rek moom bu jéggal yonte bi nee na bu ngeen dul ma yàlla ma tiit ci yéen lu gën a garaaw ma yàlla ñu ne ko yonte bi lu gën a garaaw ma yàlla mu ne naw sa jëf mu ne mu gën a ma yàlla kon nit mun ta bañ a moo tax nit yàlla nii wa in qulta in lam aznab nee na fa wujudu ko zan bu yow judd gi nga judd rek bàkkaar nga ni lu tax ñu la sa yaay lu mu la def ba nga génn ci biiram bi sonal ko mu ëmb la neuf ma ah di feebar di sonn di wàccu te lépp yaa ko teg te pourtant defoo la dara àq jooju yow mën nga koo jéggalu sa ci àdduna nga ne man aw ma bàkkaar yow sa judd rek bàkkaar la déjà kon nag innal a demat fa xatuub dafa am benn nit nit yàlla mu man damaa bëgg jaamu yàlla pour yàlla bañ maa àtte ci njëlbëreem na ma àtte ci li ma def muy góorgóorlu rek nag naafil naa mu ne du ma takk jabar sax ndax su ma takkee jabar danaa am doom am àq te àq yooyu mën naa tax sax yàlla am lu ma jekkoo du ma takk jabar bi mu gaañoo yàlla ne ko léegi dama lay àtte ci li nga def wala ci sama mbaax mu ne ko àtte ma ci sa ci li ma def yàlla ndax man musuma faat mooy mu ne ko am na ñu waroon a judd ci àdduna yaa waroon takk seen yaay ndox moom mi ngi seen ba léegi te takkoo seen yaay ba bakkan yooyu yow yaa leen faat mu soo ko jooy ne ko yàlla àtte ma ci sa mbaax xef rek xef rek nit mënu koo fay boo gisee weñ amul xef moo tax fu mu taxaw di def loxo yi bu amoon xef nag nit ñi dootuñu am jàmm kon loolu rek jëmi xef bi yàlla defar rek maanaam mu mënoo ci afa yàlla kon rek bàkkaar lu mu rëy rëy demal nga tuub rek yàlla baal la lu bàkkaar rëy rëy inna allaha la yaqbalu an yushraka bihi wa yaxfiru ma duna dalika liman yasha yàlla kenn kenn rek la dul baal mooy ki bàkk ki bokkaale ba dee ci bokkaale yàlla kon nag ah naagu baaxul la alla rahmata rabbi la alla xëy na rahmata rabbi yërmande yàlla xëy na yàq si muha bis bu ko dee distribuer ci àllaaxira te ci dana dikk lan may jox ala xasabil asiyaani tolloog li ma am ci mooy yàlla fil xasami ci cër nee su ma defoon téeméeri téeméeri mooy yàlla su ma yàlla suy sedd la njéggalam xam naa téeméeri njéggal la ma jox ma remplacé ko téeméeri mooy yàlla yi dem ajjan yàlla dafa bëgg doomu aadama yàlla dafa ñoo bëgg gis nga bu ñu yàlla bëggul woon safara ku ko julliwul ku dul julli safara nga jëm wa man arada an dikri fa inna lahu maishatan danka wa naxshuruhu yawma alqiyamati ama qaala rabbi lima a ama wa qad kuntu basira yàlla ne kadalika ataka atatka ayatuna fa nasitaha fa a alyawma tunsa mais yàlla bëggul ñu fàtte julli sax di dem safara mu ne naa leen wutal juróomi noddukat juróomi julli yëpp ñu di la nodd di la woo di la fàttali pour rek nga bañ maa fàtte wax la ko nga lim jàpp pour rek ma bañ rek nga di ma fàtte ba ay duuma di la ci fekk xam nga yàlla moom bëgg nañu nag yàlla tamit nee na yërmande yàlla ci ci ci ci jaamam yi moo gën a foor yërmande sax yaay ci doom ba demee ci alfawzu wa najaat nee na maam Ibrahima boo gisee yàlla reyloo ko doomam dafa romb ñaar ñu mooy yàlla mu ne yàlla ñu rey leen yàlla daal leen di rey mu rombaat ñaar ñu mooy yàlla mu yàlla reyal ñu yàlla rey moo xëy suba yàlla ko yow reyal sa bi métti ko diis ci moom trop yàlla ni ko sama mbindeef bu caagee ni dama leen di bind pour rey rek nii nga xam ne ni rey sa doom nu mu tiisee ci sama jaam yi itam wax dëgg yàlla rey noonu la tiisee keroog la ko kon loola mooy ni eh, yàlla subhaanahu wa taala dafa bëgg doomu aadama te bu sañoon sax du daanu ci kàmb waaw moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na àdduna bu doon peese laafu yoo ci àdduna kon yéefar du ko ci may ndox mum naan waaye yéefar nga koy wedd ba pare teewul yàlla di ko jox ndox muy naan di ko gasal teen kon nag yaa rabbi yow yàlla wajaal yàlla nga def raja yi sama yaakaar ci yow xeyr mun a àkkisin mu bañ a yaakaar ji ma am ci yow ci sa njëgal yàlla boo ko boo koy boo ko boo ko safaanal mu bañ ma ko jox la day ko waj al yàlla nga def yàlla xisaab bi sama sama réglé bi nga may réglé xayra mun xari mi mu bañ a nekk lu ñu baare xam nga xar mu mooy lan am na ci way mais xar mu mooy nga dem def devoir maître bi war koo corriger waaye bind bi nga bind baaxul ba tax mu taayal ko corriger xoore daan ak ah, kii kenn xamul lu mu bind daal ni daal loolee xar mu xam nga kooku moom zéro rek ngay daal di am ci saasi mu ne ko nag sama regle ëllëg yàlla boo ko def mun xarim te mooy lu ñu baare noonu waltuf yàlla naga nga ñeewant bi abdika ci sa jaam bi fi daaray ni ci ñaari kër yi mooy àdduna ak àlaxira inna ñeel na ko sabran muñ goo xam ni mata tad'uhu saa yoo xamee ni woo na ko al ahwalu tiitaa nga yéen xasimi di ko bëggasam ñee ñeel na ko ak muñ sabar nag ñett la sabar billahi sabar fillahi ak sabru ma allahi isbiru wa sabiru wa rabitu muñ am na tuyaaba yoo xam ne mënoo ko am ci benn jaamu yàlla yaa ngi koy am rek ci muñ nattu yàlla ak dogalu Eh, waaja dañ koo jam ci xol muy wañaar ñu ne ko muñal mu ne fu ñu muñe ñu ne ko ci xol mu ne ci xol lañ ma jam kooku moom nee na moom comme moom fa ñu muñe lañ ko jam kooku moom mënatu la muñ moo tax nag dafa am benn nit yàlla jibril dañuy wax ne daf ko gis suram yéem ko ak jaamu yàlla am mu ñëw ni yàlla kii yéem na ma de kii jaamu yàlla am mu ne ko moo ne ci nitu safara yi la bokk mu ñëw ci yoon tamit nitu yàlla am ne ko yow de sa jëf yi gii ni ma yéemati dégg naa ci nitu safara nga bokk mu ne ko alhamdulilahi rabbil alamin daal di jug julli ñaari rakk ne maa ngi sant yàlla ba ma xoolee xam ni safara rek laa war a dem mu préparé ma pour ma dem ci kontaan ci lim a dem safara mu dellu yàlla ne ko turam effacé nañ ko ñu ngi ci tur waa àjjana yi léegi mu dellu si waxaat ko mu ne ko man sama <laughs> néew man yàlla mi ma bind fam xam ne foo waa man rek yàlla na mu fa yóbbu muy safara muy àjjana kon nag waradini bil qada rabbi ni ala balaika ya rahmanu kon nag sabra mata taraul ahwalu yan hasimi wa dan yàlla na nga xiir dégg nga li sox bi salaatin ci niir wu laala moom salaatu la niir woo xam ne dafay mel ni salaatu min ko gu bàyyi koo ci yow daa imatin gu sax ala nabi ci yonent bi niir woo xam ne bi mun xallin day sotti ko mun sajime tey yol salaatu wasalaam gu mel ni niir yàlla nay dotti ci sayidna muhammad moo tax sallu alayhi wa sallimu taslima salaatu ala nabi nag ñetti la am na ñoo xam ne yu salluna ala nuurihi am na ñoo xam ne yu salluna ala nuurihi al am ñoo xam ne yusalluuna ala xaqiqatihi lmuhammadiya benn bokk yeeg sa morom firi moo tax nag li sobi salaatin min ka daa imada ala nabi bi mën halin wa min sajami loolu la yoon di Xoseyfa waxoon Omar ni ko damay jullitu du ma jàpp Omar mer mu ne ko am naa lu yàlla amul mu ne ko bi ne laa salaata li man la taharata lahu mu ko waaw julli ci yonte bi soxlawul njàpp te damay julli ci bi kon kay jëlul jàpp mu ko waaye yow da ngaa wax bañ dëgg mu ne ko waaw yonent bi ne almawtu xaq dee dëggalit damaa bañ dee mu ne ko wax nga dëgg mu ne ko waaw da ngaa bëgg fitna te yonent bi ne fitnaa ngi nelaw yàlla rëm na ko ko yee mu ne ko waaw sama damaa bëgg doom ak alal te yàlla ñu damaa am waale ko awlaadu ko fitna mu ne ko waaye da nga ne am na lu yàlla amul mu ne waaw am naa mag jigéen ak rakk jigéen te yàlla amul rakk jigéen mu ne ko waaye da nga ne xam nga lu yàlla xamul mu ne ko waaw man xam naa ki ma bind xam naa yàlla am bind te yàlla xamul ku ko bind mu ne ko da nga ne waaw am mën nga lu yàlla mënu mu ne ko waaw dara mën naa xew ma wóote ko te yàlla mënut a wóote lu xew yàlla dina ko fekk kon nag wal aali ak ñooñam wa sax bi ak saxaabaam aal foo ko gisee te saxabu topp ci dégg nga mooy mbindeef jullit yëpp ci lañ bokk su ma taabi ay na ak ña topp lahum ñeel leen dégg nga ahlu tuqaa ña nga xam ñooy borom ragal yàlla ya wan naqa ak borom sell ya wal xilmi ak borom lewet ya wal karami ak borom tedd nga ya ñooñu ñooy ashabu rasul sallallahu alayhi wa sallam a ñooy alxiyaaru abatuha ñoom la yàlla sella tànn leen annuha ñooy borom xel yi waaw annuha nag moom la moom daañ ko wax xel mooy eh, li arab waxoon ne halla nahaaka nuhaaka ala lawmi mri'in lam yulfa gayra munaamin bi shaqaayi ci jinaas moom lañ lay jàngal xel nag dañ ko tuddee nuha li annahu yanhaaka anil anil mahaarim ñu tuddee ko xijaa li annaka daf lay yiir yox yox jika daf lay def sa diggante kii kiiraay ñu tuddee ko àqal ndax daf lay tënk comme ni ñuy tënkee gilleem loolu la xel yëpp ay turi xel la moo tax ali suma taabiloo ahlu ahlu tuqaa wa wal xilmi wal karimi am ñu ahlu nuha maaran na xat loolu nag fii mi ngi kiijuloo azabaatil baani garabu filaawu riixu sabaa ngelawal saba fii mi ngi song filaawoo muy kiij kiiji salaatu salaam yàlla na nekk ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam lu doy waar la wax waaye saba fi ak garabu niim fi ak garabu niim mi ngi jaayu ngir ngelawal ngelawal saba salaatu salaam yàlla nekk ci yonante bi moo tax maa ran naxat fii di kiijuloo ran naxa mooy garab ngay dégg balance yi ngelaw li mu naan kii kiij azabatil baani gàncaxi eh, branche yi baan réexu saban wa atraba ak feeg di kontaanloo ala aysa ay gilleem xaadi la aysa kay omar gilleem ya bi naxami ci waay feeg nit di omar gilleem moom di ko wayal gilleem ngay kontaan ak salaatu salaam yàlla nekk ci yoon bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax nag riixu saba moomu nag moom la ñu tuddee alqabul day noyyi ku jaaxle rek moo lay dimbali keroog ba nga xam ne ibnu xalkaan nee na riixu sabaa moo woon yàlla ne ko man kat damaa bëgg yanqub mii nga xam ne jaaxle na ndax doom ji yusufa man nga may ma ndigal ma jël xetu yuusufa toxal ko yóbbu ko ci yanqu ba mu yegg ci baayam waaw moo tax nag ci la waxee woon ni kat dama mel ni dama xetu yuusufa dafa may xeeñ riix nag am na janóob te mooy dajale saxaaba yi moom niir yi moom saxaab moom niir yi moom ngelaw loolu ñu tuddee janóob moom moo koy dajale ko defee nag moo tax borom téere bi wax ni nag ni eh, salaatu salaam googu daal fii mi ngay am dégg nga yàlla na yàlla def eh, ngelawal sabaa di daw yàlla na ko yàlla yóbbu sajaratu baan nag bi riha saba loolu nag ak ñaan la te mooy ñaan goo xam ni kenn amul am na fu mu tàmbalee ak amul fu mu yem ndax ba àdduna tukki ngelaw di yëngal garabu filaawoo ba àdduna tukki naar di war gilleem di ko wayal ba àdduna tukki dégg nga eh, yooyu di am loo tax nag yàlla bi nga xamee ni bëgg na nag macha allah rabbi ñun ñu jariñu te yàlla na ku julli ci yonent bi benn yoon ma julli ci yow Eh, téeméeri yoon eh, ku julli ci yonent bi fukk yoon mu julli ci téeméer kon ñun bëgg yàlla bëgg ñu julli ci moom rek tax mu sant ñu julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom nag Sayyid Wujudi wa suufu di moom rek moo toll noonu keneen tollul ni moom yàlla indi ko mu dund 63 ans sallallahu alayhi wa sallam nee na ki nay mooy ki nga xam ne bu ñu nee Muhammad du wax sallallahu alayhi wa sallam kooku nag moom rek la yàlla bind ba àdduna sosoo ba ba fi ñu toll kenn dootul fàtte yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kooku mooy borom gàmm gi kooku mooy borom guddi moo tax ñuy wax ni bidaa la nag dëgg la de alaaj maa ne ci bidaa yu rafet yi la waaye am na ñoo xam seen dégg weesu na fa ndax lu tax gis nañ ni loolu farata la ndax fekk yonente bi sallallahu alayhi wasallam ba mu juddoo yàlla ne xul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi zalika falyafraxu nga kontaan moo tax alaaj maalik ni alaa addimu laylal wiladati xasbatan ida lam yakun naxwal xaraami adul neen na ngeen ko màggal guddi juddu yonente bi waaye nag bu fekkee ne nag lu araam du te mooy lan boo julee ci yonent bi am tuyaaba ala kulli xaal ah soo teralee ay gan ki njëkk a def gàmmu al malikul muzaffar la tudd lam tere ci xar ak ginaar kenn xamul nu mu toll ci àdduna bi loolu nag eh, muy dox ba sunu jon yàlla tey ku mel ni Seydi Haaji Maalik radiallahu taala anhu ku ne xam na ni sunna rek ko taxoon di dund nee na wa kullu ma faaltuhu nawaytu fiihi uswatahu sallallahu alayhi mustafi nee na lépp lu may def rek roy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom moo tax ma di ko def kooku nag lépp lépp mu ngi ci topp yu yonent bi sallallahu alayhi wa ki nga xam ne yàlla moom moo ko tànnal boppam def ko ashrafal xalq def ko gën ji mbindeef nekk naasiril xaq bil xaq waaye yemu ci de nekk talaatil xaq bil xaq nekk kan ka nga xam ni yàlla ci moom la wàcce alxaq muy dëgg kooku nag moo tax eh, guddi yii muy guddi mawlud di bunt bu mujj bi mag ñi dañ ko daan jàng ba mu yegg tey bu subaa nga xam ne mooy bisu noppalu ginnaaw suba nag di guddi gàmm gi yonent bi nag sallallahu alayhi wa sallam fu nit mën na néegu gàmm gàmm nag du ay zikkar gàmm bokkut ak werd gàmm bokkut ak salaatu ala nabi koo gis mu naan man gàmm waaye def naa ay salaatu ala nabi werd bokkut ak gàmm gàmm da ngay tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ay mbaaxam wax ay jaar-jaaram ñu ne yonent bi bàyyiwu fi gàmm munu fee bàyyi gàmm xam nga ku toog a saaba yi naan leen man maa yonent bi waaw ah, démb laa demoon Màkka barki démb laa demoon Madina ayo bind leen delloo ma ko gàmm kooku def nga ni dañ la yedd histoire kay ki fi nekkul nga koy wax moo tax fokk nit ñi xàmme lan moo teqale al ak alxikaaya ak al ak xisa ak ak fànn yooyu pour mën sax di dugg ci yenn yu bari ndax néew àlliwa yàlla nañ ci yàlla musal ñu ñëpp moo ñu dal euh, moo waral yu bari ñu di ko weddi wala ñu bari ñu di ci ci waxte fekk na amuñu ci ak xam-xam bu kon nag bunt bii nag mbokk yi ñu doon déglu boobu ba léegi dañu topp ba euh, buntu yi tàmbale ba léegi bunt bu mujj moo nekk nii di leen ci jéggalu bu baax nag ndax yàq yi jommul bari na ah, ñi koy seetaan itam di ay borom xam-xam xëy na raw ñu fuuf waaye bëgg rek lu tooyal xolu jaam yi ak xolu biddeef yi ba tax na liñ ci xam ci suñu dégg gu gàtt ñu andi ko eh, eh, di jégglu nag li ci nekk ci ay njuumte bu dee gis nañ ko ci ndax nag borom xalil nee na néew na nit ki taalif te amu ci njuumte waaye liñ ci bëggoon rek mooy nit ñi rek xam ne yont bi sallallahu alayhi moo toll noonu ah, xolu jaam yi sedd ñu xam bunt bi itam ndax di ko dégg muy neex rek nga di ci topp te xamuloo la la firi wax dëgg yàlla boo xamee lan la firi lu mu neexoon itam dana gën a neex te yant bi nag dafa jar lu ëpp loolu yant bi toll moo toll noonu yàlla na yàlla def taas ñu ci barkeem Seydou Wajur wa alami shuhud wax na ne xayaati xayrun lakum wa mamaati xayrun lakum sama dund gën ci yéen waaye sama dee gën ci yéen ñu ne ko yant bi day sa dund jaaxaluñu waaye nooy dee pare mu gën ci mu ne tubaano amaluna guddi alxamis guddi altine sama xeet bàkkaar bu ñu def daañ ma indi dossier yi bi ma xool li ci baax ma baax jàll jàll li ci bon ma négocier ko yàlla mu effacé ko loolu nag bokk na ñi nga xam ne gëm nañu yonent bi sallallahu alayhi wasallam deena deena am na koo xam ne téere téere ba la taalif bu rëy naan ni nee na yonent bi yatam yu mu yor sax di ko xutbaa moo ëpp du njëriñ yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax yonent bi deena ba pare deena ba yatam bi moom rek mën na ci am jëriñ te yonent bi mënatu ko jëriñ dara xam nga yonent yàlla wax na ci alxuraan ne shahiduna aleykum yonent bi daf leen di seede yowmal xiyaam waaw suñu toogee nii tey di di film bi te yonent bi seede wuñ fekkewul jotaay yi ëllëg si biir bu ko bëggee seede ci kanam yàlla nan la koy seedee xeetu xam-xam yooyu nag wax dëgg yàlla nit ñu bari war nañu teey ci wàllu communication xam ni xam-xam teggin moo ko lal eh, nit du xam lépp yàlla nee na sax li ngeen di jàng jàng jàng xalaqakum wa ma wa ma la taalamun wa ma utitu min almi illa qalila ndegam yonent bi ne saa salaam la yàlla wax ne yow li la jox ci xam-xam bariwul yow nga mel ne man jàng ñaari téere rek ak ñetti hadis ak ñeenti ñeenti xisa ah bëgg ko wax nga weddi ko te fekk na li nga koy weddee amoo ci xam-xam loolu lu jara moytu la yàlla ñu yàlla yóbbu ci gàmb gi nag ñu ñaan itam ñi ci ñëw ñëpp ñu daw ndànk borom oto yi ñu def ndànk eh, bañ def ay sisaar bañ itam di gëmmentu di dawal nit ñi ndax faat bakkanu jàmbur yi itam eh, bëgg alal jaru ko te yow ma xiyaam da nga koy layoo yàlla ndax lépp lu di def tey baray nit yàlla nee na doo mucc noonu fokk di nga ko layoo ci sa kanamu borom te bi nga dawal wóor na leen ni da ngaa gëmmentu waaye nag lañ lay jox sa poos tax ngay daw yenn xel yi Ah, ëllëg nag bala ngay jéggi siraat di nga lay yooyu su defee itam ñii tukki itam ñu bàyyi ci xel te waaw itam ku ñëw xam ni dëkku jaamu yàlla bañ faa def itam lu neexu yàlla ndax bi azami zamani wal makaani tuazamu taatun ala asyaani bërëb boo fa bu fa eh, eh, jamono bu nekk ak waxtu wu nekk bërëb na fa jaamu yàlla ji màggee boo fa mooy yàlla noonu lay màggee ku dem ba kaaba ga mooy fa yàlla mooy gën a màgg nga ñëw fu mel ne ab dëkk bu neex rek dem mooy fa yàlla ku dem ba ci jàkka def fa mooy yàlla mooy gën a foor nga def ko fene pour woon ci jàkka ni xam ne soo fa defee tuyaaba moom mooy gën a foor boo fa defoon leneen su ko defee nag loolu rek la ñu woonoon di ko sànni di gërëm bu baax a baax waa asfiya yi ci eh, si taxawaay bi eh, ñu doon ko def ngir lan jariñ ci mbindeef yëpp itam ak macha allah rabdu eh, tabarakallahu yeneen ñeneen ñi nga xam ne ñoom ñoo ci dimbali di ko teg di ko defee incha allah boobu yàlla nañu yàlla defal tawfiq bi jaahi seyr wuju wa alimi shuhudi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh